الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokk jullit yi ñu ngi dénk sunu bopp di leen dénk tënku ci ndigali borom bi azza wa jal di moytandikuloo sunu bopp di leen moytandikuloo bëtt ay tereem di ndokkeel sunu bopp di leen ndokkeel ci weer wi ñu jóge muy weeru koor ak bis bi ñu jóge muy bisu di ñaan borom bi tabaraka wa mu nangul ñu nangul leen waaye nangul mboolem julit ñi ca fulal ñu ko yàlla def ñu bokk ca ñi nga xam ne danañ fekkawaat weeru koor mbokk yi koor jàll na ñu wattee jële ay bind yu baree bari bokk na ca bind yooyee nag mooy gaaw goo xamante bi dundug doomu aadama gaaw na ko ak gàtt goo xamante ni bii gàtt na ko nga xamante ni bii moom jamono xaarul kenn ba ñu daloo weeru koor ak diggante bi ñu ko génnee lu gàtt gàtt la euh, profitoo gi ñu doon profitoo ci weeru koor loolu bind la ci doomu aadama war a profitoo ci ak dundam lépp dundug doomu aadama dafa gàtt lool ca bari ay gàllankoor tawat yaa ngi fi yitte yaa ngi fi ce dee moom xarul kenn dafay bette la tastaxiruuna anhu saatan wala tastaqdimuun yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na dee de moo gën a jege kenn ci yenn awaraw dàlloom bis bu nekk ñuy xëy ak a gontu di suul suñuy soppe di leen denc ca bàmmeel ya wëlbati ko dellusiwaat ci kër yi rey suñuy nag lekk ka naan di xal xal di fookarewu fàtte ka nga xamante ni bii moom lañu àndoon ak moom démb ca suul ko léegi mbokk yi kon jullit bi war a ragal yàlla war a profitoo ci ak dundam ci jëf ju baax ni nga xamante ne bii noonu la doon profitoo ci weeru koor profitoo ci jëf ju baax rawatina jëf yi nga xamante ne bii nit ki day faatu lu yàgg yàgg yàgg ab yoolam di ko fekk foofee njariñ la di ko fekk foofee ndax faatu mooy Euh, posé bi nga am ngir mën a jëf lu baax nga xamante ni bi ñafaatu ñëpp ñu ngi koy ngéejoo di ko mébét ni ko sëñ Tuubaa radiyallahu anhu waxee ci masaalik ne ñafaatu lañu gën a bëgg gën ko mébét mooy delsiwaat ci àddina ak lu mu gàtt-gàtt ngir ñu mën cee jëf jëf ju baax ju leen mën a jariñ ndax xam gu ñu xam jëf ju baax na mu amee njariñ foofee kon ñun ñi nga xamante ne bi ñu ngi ci pose mën a jëf ñun ñooy sàggane jëf ju baax waaye ñoom ñee nga xamante ne bii de posé ba bu rëcc na leen dañuy rëcc ak a doon mébét dellusiwaat ba mën a jëf-jëf ju baax joojee kon di fàttali ci war a gu ñu war a profitoo ci jëf ju baax rawatina jëf joo xamante ne bii day des suñu ginnaaw lu war la waxtu wu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne nit ki bu faatoo jëfam yépp dafay dagg ndaree ñetti jëf ca mooy sarax boo xamante ne bii dañ koo saraxel ginnaawam wala xam-xam boo xamante ne bii da koo jàngale woon wala da koo taalifoon wala da koo xamle woon ñu koy jariñëw ginnaawam wala doom ju baax joo xamante ne bii da ko wàcc ginnaawam kon jëf yi nga xamante ne bii day des sa ginnaaw yool ba di la fekk foofee mbokk yi jëf yooyu jëf la yu jullit bu nekk war a sonne ngir xam ne jóge fi moom munta ñàkk ca foofee nit dana fa tëdd lu yàgg-yàgg ba mbooleem la mu jëfoon ci lu baax sax mën na koo jëfandikoo lekk ko ci bàmmeelam li njëkk yomal xiyaam di taxaw kon kii dund am na posé mën a fàggu ci jëf yooyu nga xamante ni bi mooy des ginnaawam euh, bu fi jógee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boobu euh, tuddal nañu ñett mooy sarax mooy jëpp jëf joo xamante ne bi jëf ju baax la joo xam ne da nga koo def nit ñi di ko jariñoo ci seen wàllu diine wala ci seen wàllu àddina moo xam ab teen la boo gas moo xam ndox la moo ñoddi moo xam ab jàngukaay la boo tabax moo xam ab hôpital la boo tabax wala aw yoon wala jàkka wala sax yow mënuloo ko waaye da ngaa fekk ña cay liggéey nga participer ceeg ci saw ñaq wala ci sa alal si kamtalay kattan kon boo leen xeeti jëf yooyu nga xamante nit da koy jariñoo wala sax jur gi dañ koy jariñoo yooyu jëf la yoo xamante ne bii ab yoolam day des ginnaaw bi doomu aadama faatoo mu teg ci wa ilmin yuntafau bi xam-xam boo xamante ne bii dañ koy jariñoo ginnaaw loolu dafay làmbale jàngale xam-xam jàng xam ak jàngale ko tasaare ko walla sax téere ya nga xamante ne yu am njariñ la nga móol ko tasaare ko wala nga leeral ko wala mbooleem xeeti jàpp ndal yi nga xamante ne bii da nga tax xam-xam jàpp ni ci ñi ko sàkk ñu koy wut loolu dafay dugg ci biir ilmun yuntafau bihi mu teg ci aw waladun saalihun yad'u lahu doom ju baax joo xamante ni bii da koy ñaanal ginnaaw ba mu faatoo loolu mooy nga yar ko ci lislaam jàngal ko ndax ci yar ak ci jàng ci la nit ki mën a baaxee ci la doom di baaxee ci yar ak jàng lay xame xaqi boroom ba man koo jaam bañ koo bokkaale kenn ci yar ak jàng lay xame xaqi way juram xam ci xaq ay bokkam ak i ay dëkkandooram ak jàmbor yi xam xaq liggéey yi ñu ko jox ak mbooleem xeeti xaq yi nga xamante ni war na ko sàmm ca bu ñu xamee xaq yi sàmm ko ci wàll yépp bu boobaa la jàmm di am ci suñu dund la tey ak neex di am ci suñu dund waaye tamit ci la ñu mën a am ak mucc ëllëg yomal xiyaam yal na nu suñu borom dimbale ci ñu mën a sàmm xoq yi ci anam yépp ca bañ koo sàggane kon mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñu dee jàngal yi nga xamante ne bii ay jëf la yoo xam ne day des ginnaaw nit ki bu faatoo daf ñoo bëgg a soññi waaye daf ñoo bëgg ñu profitoo ci dund gi nga xamante ne bii gu gàtt la ngir ñu man cee farlu faggu ci loo xamante ne bii su suñu dund jeexee tamit suñu yoon lu jeex ba mukk yàlla ñu yàlla boole dimbali ñu ci jëf yooyu ba mañ koo taxawee kon xadis bi dafay digle euh, sonn ak profitoo ci dundu doomu aadama ndax ak dund day fa day jeex waaye jëf yi moom du jeex ba mukk xool leen boroom xam-xam yi nga xam ne jaaroon nañ fi bañ fi jógee léegi ay junni junni at la waxtu wu nekk nga dégg an abi hurayrata radiallahu anhu an abi bakrin an umar an usman bis bu nekk nga dégg sëñ Tuba nee na Euh, ibnu mubarak nee na imaamu shafii nee na xam-xam yooyu ñu ci jariñu seen ginnaaw loolu mooy ilmun yuntafau bihi waaye yenent bi def na alwaladu min kasbi abi doom dafa bokk ci faggu téefu baayam kon doom ja yar ci diina jàngal ko diine lu mu mën a taxawee sa ginnaaw ci wàllu diine euh, loolee da ngay jot yool ba jëf yooyu jëf yu mat a sonnee la ndax doomu aadama dundam pose la deew a ngi ñëw ak wéram pose la tawat a ngi ñëw am koomam fase la ñàkk a ngi ñëw ak ndawam fase la màggat a ngi ñëw ak féexam fase la yitte yaa ngi ñëw comme al wal ahluuna illa wadaa'iu wala budda yowman an turadda al wadaa'iu kon jëf yooyu nga xamante bi dafay des ginnaaw nit ki bu faatoo mut benn benn benn ndax nit ku faatu say jëf euh, ak sa alal ak say bokk ñoo lay topp waaye alal ja ak bokk ya du ñu weesu euh, euh, bitti bàmmeel ba ñëpp ay wàññi ko jëf ji rek moo fay des ànd ak yow di la wettali di la musal moo tax sunu borom tabaraka wa taala di wax ne yéen ñi gëm yàlla rikkuwaay alal ak doom bu dox seen digganteeg jaamu yàlla rikkuwaay addina alal ak doom bu mu dox seen digganteeg euh, jàmm yàlla ku ko def da perte wax ñi nga xamante ne bi waroomi alal lañ ne na leen li ngeen yore ci alal na ngeen ci joxe na ngeen ko def ci yoonu yàlla na ngeen ko dawal ci seen bàmmeel la njëkk kenn ci yéen faatu di ñëw mu naan ay bi ñoo fi bàyyi woon ba sa wax ay bu ñoo fi bàyyi woon ba waxtu sàngam ma mën a saraxe mën a def nangam borom bi ne walan yuaxira allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu xabirum bima taamaluun al imaamu suyuti rahimahullah dajale na jëf yi nga xamante ne bi yonent bi wax na ne e, dafay des ab yoolam ab yoolam dafay des ginnaaw bu nit ki faatoo jële ko ci ay xadis yu bari bokk na ci xadisu abi hurayrata bi nga xam ne al imam ibnu maaja ak bayhaqi ak ibnu xuzayma Euh, solo nañ ko mu woy ko ne ida maata bnu aadama laysa yajri alayhi min fiaalin gayri ashri nit ki bu faatoo amul yenn jëf ñu koy fekk foofee ab yoolam ndere fukk jëf yi bokk na ci xam-xam boo xam ne da koo tasaare woon bokk na ci ñaan goo xamante ne bii doom da ko koo ñaanal ca doom nag bala la mën a ñaanal da nga ko yar ci diine mu xam la muy ñaan xam sa xaq waaye tamit bokk na ci ay garab yoo jëmbatoon waaye sarax boo saraxe woon wala sax ab kaamil wala ab téere xam-xam boo jëndal kuy sàkku xam-xam wala nga jënd ko yóbbu ko ci ñuy jànge xam-xam waaye tamit li ñuy wax faaxu ci yoonu yàlla ar ribaat bokk na ci jëf yi nga xamante ne bii bi yoon day des ginnaaw bi nit ko waaye gas ab teen wala ñoo di am ndox wala tabax ab dëkk tabax ak kër goo xamante ne bii euh, ñu tumuranke ñu ay doxaleem ñoo koy nekk wala tabax euh, bérébub jàngukaay wala jàkk wala jàngale alquran nee na jëf yii daal ci tënk fukki jëf la yoo xamante ne bi seenub yoon day des ginnaaw bi nit ki faatoo yal nañ yàlla defal ak dégg ak topp na yàlla nangul koor yi nangul ñu naafile yi boole yi ci ñuy fekk koor bokk ñu boole ci ñi nga xam ne suñu borom tabaaraka wa taala nangul leen nangul na leen seen koor di fàttali tamit euh, euh, juróom benn fan yi nga xamante ne bi sunna la ci ko xamante ne bi man na ko mu def ko gunge ko weeru koor yi yal na yàlla defal dégg ak topp salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh